الحمد لله القائل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أحمده سبحانه وتعالى وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم يقول جل وعلا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala mi àddu ci alquranul karim wax ni képp ku yaakaar daje ak moom ëllëg na ngay jëf jëf ju sell jëf ju baax ànd ak ngay bañ a bokkaaleeg moom kenn ñu ngi koy sant moom subhanahu wa taala di ko dimbali ko di ko ñaan mu jéggal ñu suñuy bakkaar di seede ni amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom subhanahu wa taala te waruñu koo bokkaale ak kenn di seede ni suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la soppeem la yàlla na yàlla julli di salmal ci moom fayal ñu ko moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubam di rafetal booba bis penc di taxaw mbokk yi ñuy dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla subhanahu wa taala comme ni ñu ko dénkee ci aaya bi muy wax ni ay yéen ñi gëm na ngeen ma ragal tey faggandiku li nga xamante ni mooy yóbbalu ëllëg di ay tuyaaba da ngeen xam ragal yàlla te xam ne yàlla mu ngi leen di fuglu mu ngi leen di bàyyi xel ci lépp lu ngeen di mën a jëf ak a wax mbokk yi suñu xutbay tey dañ koy sof ci suñu xutba bi weesu mu nekkoon jëf ju sell jëf ju baax ak ay meññentam yim mën a jural ci koy jëf fii ci àdduna ak àllaaxira ñu laytayoon ko di xamle lan mooy jëf ju baax jëf ju baax mooy lépp loo xamante ni yàlla gërëm na ko lépp lu mu gërëm loolu jëf ju baax lañ koy tuddee moo xam jëfi xol bi la wala jëfi cër yi ñu waxoon charge yi nga xamante ni mooy tax jëf ji ñu ni jëf ji jëf ju baax la li ci njëkk mooy da ngay doon ab jullit ñaareel bi nekk al ixlaasu mooy nga sellal jëf ji ngay jëf yàlla kese tax nga koy jëf du ngis kal du àdduna du dara moo tax nga koy def furul yàlla ñetteel bi mooy nga dëppale ko ak jàngale yonente bi sallallahu alayhi wasallam nga méngale ko ak jàngale yonente bi sallallahu alayhi wasallam lii de soo dajee ci jëf rek jëf jooju ñu koy wax al amalu as-salih jëf ji doomu aadama ji jëf saay bu faatoo rek dagg na lu dul nag li ñuy wax sadaqatul jaariya muy ay dawlu yu mu fi bàyyi woon ëllëg ñu koy fekk comme tëdd ñu waxoon ci benn ci meññent al amalu saalix fii ci àdduna njiital biñ ko lay taayeele aaya bi borom subhanahu wa taala wax ni wattaqu yawman turja'una fihi ila allah na ngeen di ragal yàlla tey bàyyi xel bis bi nga xamante ni ca la ñuy dellu suñu borom subhanahu wa taala summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun buñ fa eggee nag yàlla suñu borom fay kenn ku nekk la nga doon jëf te yàlla du doon kenn wa ma rabbuka bi zallamin lil abid yàlla du tooñ kenn ci loo xamante ni defoo ko mu la ci xisaab la ci duma wala nga def ko mu ñàkkal kaa bindal al amalu salih ñu waxoon ci samra bu njëkk bi muy jural doom bi aadama fii ci kaw suuf mooy assaadata wal xayaata tayiba mooy dund gu tey dund gu dal yàlla suñu borom subhanahu wa taala waxoon ci ni man amila salihan min dakarin aw unsa képp ku jëf jëf ju baax moo xam góor nga nag wala jigéen nga wa huwa mu'min charte baa ngi noonu fekk yow nga nekk koo xam ne ku gëm yàlla nga yàlla mu ni fala nuxiyannahu xayaatan tayiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kaanu yaamaluun kooku dinaa ko defal dund gu tey dund gu dal fii ci kaw suuf te bu ñëwee ci man ëllëg dinaa ko fay ba wis ko ñu waxoon ñaareel ci samra bi kii jëf-jëf ju baax di am fii ci àdduna mooy xifzul ahl wa zurriya wal amwal yàlla dina la sàmmal sa alal sàmmal la sa njaboot ñu noonu ci misaal ci Muusa ak waa ju baax dañu mu àndaloon ca miir ba ñu jubbanti woon wa amma aljidaaru fa kaana li gulaamayni yatiimayni fi lmadina wa kaana taxtahu kanzun lahuma la ko yàlla eggale mooy wa kaana abuhuma soliha seen wayjur dañoo nekkoon daa nekkoon ñu baax ñu sell moo tax ma sàmmal leen seen alal gi ngir mu nekk ndono ci ñi ñu ci bàyyi ñetteel bi ñu waxoon ci jëf ju baax ci koy jëf yàlla dina ko am lu mu ko fayee fii ci kaw suuf mooy sababun li tafriji lhumum wa kashfi lhumum wa qadain lilhaaja yàlla dina la teggal bépp njàqare ak bopp bu tëju ci soxla bu mën a doon ñu indoon ci xissa ci ñett yi nga xamante ni ñoo duggoon ci biir xuntu ba kenn ku nekk la leen fa sobe woon mooy seen jëf ju baax ju ñu defoon te yàlla rek tax ñu seedaloo ko yàlla yàlla génnee leen ci xuntu bañ nekkoon mu tëju suñu fi ñuy dalee tey mooy kii jëf-jëf ju baax ban samra la ko yàlla defal fii ci kaw suuf ñu ciy lim mahabbatullahi azza wa jalla wa qurb min wal qurb min mooy bëgg bi la yàlla di bëgg ba pare jege di ngay jege suñu borom subhanahu wa taala te loolu liy firnde bi mooy xadisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bii mu nettali ci xadisu abi hurayra radiallahu anhu mu ni ci xadisu qudsi la inna allaha qaala man aada li waliyan faqad aadantu faqad aadantahu bilxarb képp koo xamante ne noonoo nga yàlla mu ni képp koo xamante ne noonoo nga sama nit li ñuy wax wali mooy koo xamante ni nitu yàlla la nitu yàlla mooy fii jëf li yàlla digle al amalu saalih comme niñ ko waxee mu ni képp ku noonoo ak kooku man yàlla déclaré naa la guerre wal iyaazu billah yonent saa salaam waxaat ci xadis bi nii wa ma taqarrab ilayya abdi bi cheyin ahab ilayya mimma aftaratuhu alayhi mu ni yàlla nee na sama jaam deful lu ma gënal lu jiitu li ma farataal ci moom mu def ko ba noppi yàlla farataal ci yow nga def ko ba noppi leneen looy def nga def ko yàlla mu ni ci xadis bii ci xadisu xutsi bii sama jaam bi deful lu ma gënal lool njëkk ginnaaw loolu farata yi mu ni sama jaam bi du góorgóorlu di def ay naafila nag ginnaaw farata yi ginnaaw julli farata yi naafila yi ginnaaw weeru koor naafile yi yowmul isnayni altine alxamis wala ayaamul biid yi naafile yi ginnaaw aj umra yi saraxe yi ngay saraxe ba ci al amru bil maaruf wa nahyi anil munkar digle lu baax ak di tere lu bon mu ne sama jaam bi buy def naafile yi du jug di def naafile yi lu dul dama ko dama ko xëcc jegele ko sama bopp pare bëgg ko mbokk yi yàlla moo wax fii ni jaam bi buy def loolu moom yàlla moo koy bëgg bokkul ak ñun ñiy daw di bëgg yàlla ngay daw di bëgg yàlla mooy ngay def farata yi teg ci ay sunna yi naafila yi nee na booy def farata yi di def sunna yi man yàlla dama lay jël bëggal la sama bopp mu ne nag man su ma la bëggee man yàlla maay doon say nopp yi nga xamante ni moom ngay déggee maanaam doo too déglu lenn lu dul lu dagat may doon it sag gis amul lenn luy xoolati lu xaraam man yàlla may lay orienté may doon it sa loxo yi nga xamante ni ci ngay fàggandikoo li ngay am di ci joxe it looy fàggandiku lu dagal lay nekk xalaalan tayiban soo koy joxe tamit ci fu dagan da nga koy joxe ndax yàlla mooy ci lay orienté may doon it say tànk ba fépp fooy dem rek fu yàlla gërëm lay doon ndax yàlla man maa maa la bëgg man yàlla yàlla mu ne nag ci xadis bi ba tey mu ni man yàlla du ma sikki sàkk si lu ma war a dogal ci sama jaam bi lu dut ci koo xamante ni ku mel nii la ma war a jël ruuxam kooku dinaa sikki sàkk ci moom dinaa hésité ci moom hésité ci moom pour jël ruuxam ndaxte sama jaam bi bëggul dee te bëgguma lu ko metti subhanallah mbokk lii daraja bu kawe kawe kawe la ci ci ab jullit te fa nga koy jaar ngir am ko mooy jëf fara tey tey góorgóorlu ci sunna yi suñu benn sëriñ daar daf daan wax ni jullitu ordinaire rek moo yem ci farata yi ginnaaw koor koor ngay xaaraat buñ la ne juróom benn fan yi ngay teg ci koor ga muy sitta sawaal sax nga ne waxaayu mag yàlla loolu buñ la naan koor gi de nga dégg ko fekk ci jamono jii ñun la koor nanga mi weer ci des maanaam da ngay gàddaay boobu jataay doo dégg nangoo dégg lu jëm ci wàllum koor inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mbokk yi juróom benn juróomeel dañuy limaat ci kii jëf-jëf ju sell ana lan la ko yàlla di faye fii ci kaw suuf laataa mu ñëw ci moom yàlla mu ni inna alladina amanu wa amilu salihat sa yajcalu lahum arrahman wudda nee na ñi nga xamante ne dañuy dañoo gëm yàlla tey jëf jëf ju sell man yàlla de damay jël xolu ñu baax ñëpp def la ci seen biir xol yi képp kuy nit ku baax rek da lay sopp képp koo xool rek da nga koy sopp da lay sopp mbokk yàlla yàlla xiir ci def ci lu baax te yàlla tegal ñu siraat al mustaqim aqul ma sami'tum wastaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimina kulli shay'in fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين mbokk yi ginnaaw bi ñu santaate yàlla subhanahu wa taala du julli di salmal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëwaat ba tey ci jëf ju baax ak ay meññentam fii ci àdduna ak fañ jëm ci àllaaxira ginnaaw bi ñu limee yenn ci ay meññent yu la yàlla di fayee fii ci kaw suuf ñuy lim yi nga xamante ne nag moom la yàlla di xaare fee nga jëm ci àllaaxira ci xadisu anas radiallahu anhu dafa wax ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni ida arada allah bi abdin xayra istamalahu istamalahu fa qiila kayfa yastamiluhu ya rasulullah qaala yuwaffiquhu li amalin saalixin qabla al mawt anas daf ni dafa dégg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni yàlla da bu nemmee ci jaam bi yiw da koy liggéeyloo léegi saxaaba yi ne ko ana naka la la yàlla di liggéeyloo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ngi leen yàlla daf lay xiirtal ci def rek lu baax ba ba ngay faat mu ngay faatuwaale yàlla ñu ci yàlla boole mbokk yi ki nga xamante ne dafa dem bay faatu nag nekk ku daan jëf-jëf ju baax kooku lan la ko yàlla di fayee ci sukkurat nga xamante ni yonente saa sallam ba muy sukkuraat dafa bokk ci kaddu yi mu yëkkati mu ne ala inna lil mawti la sakaraat maa ngi leen di xamal ni dee de am na métit ki nga xamante ne dafa dem nag ba war a faatu nekkoon ku daan jëf-jëf ju sell yàlla suñu borom subhanahu wa taala nee na inna alladina qaalu rabbuna allah summa istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaika alla taxaafu wala tahzanu ki nga xamante ne dafa doon jëf jëf ju baax jëf ju sell ba war a faat yàlla malaaka yi mu lay yónni ñu war a jël sa ruux sax malaaka yu sell la ñuy doon ànd ak bu ñu ñëwee dañ lay neng nengal ngir rob ci sa ruux ba ba ruux gi di tàqali ko ak yow laataa ruux gi tàqali ko ak yow yàlla dina def ci yow won la ni li ngay bàyyi ginnaaw di ko ragal man yàlla maa la koy téyel te fa nga jëm tamit muy foo musul dem boo ñëwee bu fa am dara looy tiit bu fa am dara looy ragal boo ko dal mbokk yi kiy jëf-jëf yu baax yàlla da koy réserver mu des nag boo duggee sa biir xabru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi nettali ci xadisu abi hurayra ba tey mu ni ki nga xamante ni dafa faatu fekk mu'min la way gëm la nee na lam fay fekk ci biir bàmmeelam mooy yëm doon góorgóorlu ca julli ya woor ya zakat ya sadaqa ya ak wax wax ju baax ak jëflante jëflante bu rafet gi ñu doon jëflante seen biir nee na jëf ju baax jooju lay fekk ci biir bàmmeelam moo koy wéttali nee na ba ñu ko denc sax bu ñuy dem day dégg seen karaas karaasu tànk yi laataa ñu koy laaj laaj ñu koy laaj waaye moom du bokk ci ñi nga xamante ni dañuy dund lii di aza fitnatul qabr laaj bi ñu leen laaj ci biir bàmmeel muy laaj yi nga xamante ni ñëwoon nañ ci xutba yee wees mbokk yi mu def nag samra bu rëy gi nga xamante ni moom la yàlla réserveel ñi nga xamante ni ñoo ñu ko doon gëm fii ci kaw suuf di góorgóorlu di ko jaam yàlla suñu borom subhanahu wa taala yonente bi sallallahu alayhi wasallam mooy nettali mu ni jaam ñëpp buñ duggee biir aljanna yàlla nañ ci yàlla boole mu ni yàlla dafay ñëw ni ñu ana lu ngeen bëgg ma defal leen ko mbokk yi ñu ngi biir aljanna de yàlla di ñu laaj lan ngeen bëgg ma defal leen ko ñoo ko yow subhanahu wa taala suñu faatu sax dafa leet dafa lewetoon yaa ayatuha nafsul mutmainna lañ jëlee suñu ruux irjii ila rabbiki radiyatan mardiya fadxuli fi ibadi wadxuli jannati ñu ñëw fii suñu xarakanam yi leer nañ manqué wuñ fi dara lii kay nag fu mu doy leneen doo doy yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla ni kiiraay bi doxoon suñu diggante ak moom pour gis ko moom lay dindi ñuy jàkkaarloog suñu borom jëxëran keroog la saa sam neen keroog ngeen di jàkkaarloog seen borom jëxëran comme ni ngeen di jàkkaarlu jëm suñu yàlla nañ ci yàlla defal bokk yi ñu ngi ñaanal suñu mbokk yi jëm ci bërëb bu sell bee di Tuuba yàlla yóbbu leen ci jàmm yàlla delloo si leen ci jàmm te dem gi doon ak dolliku ci pas-pas xam ni kañ fay fekk ji lii ñu doon wax léegi na ci la tënku woon xéewal googu ba léegi mooy baawaan ba ci sët yeeg sëtaat yeeg sët sëtaan ba ci yawmal xiyaamati di ñëw ñu ci nguuru mbokk yi ki ma de ki ma yërëm ci jamono jii mooy ki ma wax keroog ni Tuubaa moom su ma fay dem sama vitamine A ba Z fa laa koy remplir ji maanaam lekk gi dong ko yóbbu Tuubaa nee na ndax vitamine A ba Z bi bi yaramam soxla foofu la koy amee ji est-ce que kooku mbokk yi xalaat na waa Gaza ñee nga xamante ni seen frontière lañ tëj lekk duggul inna lillahi wa inna ilayhi rajiun rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا إلى صراطك الصبي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله